bilaay mooy baadoola sëñ Daouda yaa mooy baadoola sëñ Daouda yaay baadoola bilaay mooy baadoola ñëpp wóoro te yaay digle koor gi fii ci koñ bi boo xëyee sa kër koor ka fay tàggoo waaye balaa bi dee nga dog koor gi maa ngi am yitte lool lool lool lool lool yo te xam naa ne fii may waxe yow nii ah, njaay njaay njaay njaay am na caay-caay bu toll ne fi mu toll boo ko woowoon boo ko woowoon mu naan la dama sore damaa def nii ak ah te moom daanaka ci wata gi lay liggéey moom buñ ko wooyee rek daa war a ñëw ah te fi mu moom man moom wax dëgg yàlla moom aw ma kàttan bu toll ne moom daagañ daagañu fii ba marché moom naa eh, ko xaadim xaadim xaadim bàyyi maa wuyoo oo xaadim borom turu baax xaadim sëñ Bamba laa la tudde de bàyyi maa wuyoo oo ah yow ñi ngi la tudde ñi ñi dégg nga maa maa ngi la tudde sëñ Bamba laa la waxal man ah ñu ne la wax xaadim Bamba ah yow ma dégg nga naan ko kenn mënut a noppalu woote di woote di woote di woote nii rek. léegi yow dinaa la woowati dinaa la woowati xaar nga di ma oo loolu laay xaar yow. Ah, bàyyi bu ma la woowee nga naan ma oo. ah dégg nga amanu bu yar. Ah, mbàkkee ngi fi. damaa gëmmante damay dem xam ne damay dem may ma rek mbàkkee ngi fi dégg nga. man Mbaw laa sant Mbaw. ma ni eh, kii sa baay Youssou Ndiaye sa baay Youssou Ndiaye fi mu toll damaa bëgg dem marché te fi mu toll xam nga ni koor bi metti na ci man te mënumaa dox fii ba marché. te gannaaw moom wata la yor di di di ci di ci yëngu damaa bëgg nga yërëm ma fii numéro nga nga nga fexee ma ko composé. bu ko defee numéro numéro numéro. yow numéro yi ñàkk moo ko boobu ba léegi. xaw ma ko xaw ma ko kat. damaa jàng. dégg naa ñu ne yow yow ba nga nekk xale ba nga dugalee jàng da ngaa dawoon. xaadim doo sam morom. xaadim liiral ma li ma lay xooloo. maanaam yéen bi ngeen nekkee xale du ngeen jàng ba pare nekk mag bëgg rek nit waaw góor ba xamee loolu nag booba nga waroon a góor ca sa njaagam mais fi mu doon yow njàng mi fa nga ca war a tool tolloo ko fa da ngaa daw ah naa ci torop numéro baa ji am kiyal mi ngi dem mi ngi dem mi ngi dem ah, ah waaw kooku Njaay waaw waaw waaw waay maanaam mbaw waay yow fan nga ne nii fi mu toll nii waaw kay yaa ngi watag waaw ñëwal nii sama kër léegi nii yóbbu ma yóbbu ma marché damaa bëgg a dem marché ah yaa ngi ñëw waaw waaw waaw baax na waaw baax na baax na man kay jekk naa maa ngi nii toog nii moom man kay jekk naa moom dama fa dama faa am yitte yitte yitte ju ju ju ju ju kafin waay waaw kay jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Eh, eh, maa ngi ñëw waay defal ndànk ba ma la xam ak léegi ci yaa ngi laa la xam eh ma ne wata yi du ma tëb eh wata yi du ma tëb tëb di si dugg de dafa ndàgg rek. bismillah. ay da daa la ci def. daa daa daa mari jaay daa la rek. Touba ah sama wóor la yow waaye Ndiaye nag Ndiaye nag yow ban dëkk joxe ba léegi yaa ngi lekk miskit. ah ah waaw waaye yow woo ma loolu. ndax saa bi déglu ma rek. waaw ndax saa bi xool na ah jàmbar na ma dégg ma nee maa wóor. man mënu maa wóor danaa lekk yàlla dugg. waaw baax na baax na yaa xam waaw léegi yow. waaw sama njàng ma man fan lañ ci toll. waaw man li ma jaaxal mooy. ñii ci suuf ma jaaxal. ñett yi da nga sëñ Ndao. waaw oto lee nga seen ne leen. waaw mooy aspirateur bi ne leen. waaw lee ca digg ba. waaw mooy frein a. waaw. <laughs> baadoola sëñ Daouda yaa baadoola bilaay mooy baadoola sëñ Daouda yaay baadoola bilaay mooy baadoola ñëpp war wóoroo te yaay digle koor gi fii ci koñ bi boo xëyee sa kër koor ka fay tàggoo